waaw aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda abada mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziyaara ñoo ngi santaat yàlla sunu borom bu baax di julli ci waat ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di santaat bu baax sunu yaakaar ji Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mbooleem li mu yéenee liggéeyal Cheikhul Xaadim mu àggale ko ak sagoom tànd ko mbokki taalibe yëpp mu mel ne su ngeen gisee jataay bi rek eh, am na lu ko waral te mooy liggéey bu jëm ci liggéeyu Sëñ tubaab bi nga xam ne may yi ko sunu borom may du jeex mukk ngir ndam yi mu def bari ba tax na taalibe yi liggéey yi ni def lii bokk na ci benn liggéey muy daairab muxaddimaatul xidma bi nga xam ne sëriñ Afe Bousso imaam moo ko jiite euh, nga xam ne moo yor lépp luy jumtuwaay yi ñuy saytoo jumaay ji ak li ko wër ñu toog ak sëriñ Abdul Ahad Bousso mi nga xam ni euh, jëwriñ la ci muxaddimaatul xidma waaye mu mel ni waa daaira Miftaaxu Nasri fédération argentine bi nga xam ne barki Dembo Ndiaye lañ jébbale seen hadiya ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha di liggéey bu rëy ñoo dajawaat fii tey fas yéene indi seen hadiya ci liggéeyub Sëñ Tuubaa bi nga xam ni mooy liggéeyub jumaa ji di daaira Muxaddamatul Xidma fas yéene jébbale hadiya jooju yi teew na fi nag ndigalu jëwrin Mortala sàll mi nga xam ne moo ŋànk fédération Miftahou Nasri yebal na fi jëwrin sëñ Dame ak sëriñ Baye Cheikh Dieng jëwrinu xasiday Miftahou Nasri ak sëriñ sa Gaye ak sëñ Adama Samb ak sëñ Sam Diop ñoo fi teew kon nag dañuy jox kàddu gi rek euh, sëñ Dame mi nga xam ne nii euh, moo. moom la jëwriñ yebal mu jiite liggéey boobu su ko defee ñu jébbale àddee ji sëñ daam ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la jox nga yi aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wal tudxilil musliha fi yaddi wa wa sabbithu bil haadil wa fii asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sahibul fadila Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér noonu lañ koy ñaanale kilifa barab bi di imam Serigne Afia Bousso mu nga xam ne moo jiite daayiratu Muxaddamaatul Xidma ak Serigne Abdou Lahad Bousso maamasa mi ñu dendal feggoog moom mu bokk ci ñi jiite barab ñi jiite daayira bi sëñ Abdoulaye ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbokk yi ñu àndal yëpp. di nuyu sëñ Baye seex jenn ak sëñ Amsa Gueye ak mboolem ñu àndal ñëpp ci siyaar bi ci kilifa ci kilifteef ak sëñ Mortala sàll jëwrin mi nga xam ne moo jiite fédération Miftaaw Nasri Touba Argentine ak sëriñ Bamba Ñang min toftal ci moom ak mboolem dawaay di nekk Argentine yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di sant yàlla bu baax nag ci dajewaat gi ñu dajee ak yéen di daaw lañ fi daje doon barkeelu ci bis bi bisu Seexul Xaddim waaye di barkeelu ci li jëm ci entretien wala li jëm ci mboolem lu aju rek ci daayira boobu daayira mu xaddamaatul xidma tey nag ñu am mbégte bu baax toog fii ci barab bu tedd bii ci orom bu tedd bii di orom Seexul Xaddim muy jumaay Seexul Xaddim ji kon loolu tawfeex la sant yàlla la yàlla suñu borom defal tawfeex yu bari ñu teew fi ay déwén yu bari barki Seexul Xaddim Cheikh Abdoulaye ñu ngi lay nuyu ci turu Motara sëñ Motara Sall ak mboolem waa fédération Touba Argentine gépp nun ko baaxoo defee rek at at mu jot ñu feeñal seen yéene ci eh, ànd ak yéen ci eh, muxadamatul xidma ci mboolem li ngeen di jëf moo xam taxawaay yëpp la nag ndax eh, daayira bi dafa nekk daayira bànqaas boo am doole ci yoon wi waaye ëmb lu bari nag ndax lépp lu ne moo jëm ci jumaay Touba ji ak armeel yi nga xam ne mooy Baqiya ak li ko wër ak Touba ak jumaay Touba ji di jëm ci imaam yeeg mu azin yi ak ñi xam ne ñoo nekk ci biir daayira bi di liggéey. moo xam ci biir jumaa ji sàppe yi yooyu yëpp daayira bi moo ko ngànk ba ci añ yi nga xam ne moo ñëw nga xam ne euh, lu bees la sax ci euh, daayira bi muy añ yi nga xam ne ñooy bàyyi ko te euh, maanaam ñu nekk ci diaspora bi di ko di ko di ko sasoo muy àjjuma bu jot rek ab taalibe sasoo añ yi nga xam ne moo jëm ci añal waa ñu nga xam ne ñooy liggéey ci jumaa ji ci àjjuma yi muy lu am solo muy liggéey bu am solo ndax jumaa ji dafa nekk jumaa joo xam ci ndéggaanu Sëriñ Tuubaa la la la bokk kon képp koo xam ne yàlla suñu borom def na nga jóg ngir ànd ak ñoom ci liggéey boobu taw feex la sant yàlla la kon ñoo ngi jottali kàddu googu ci kàddu jëwriñ sëñ Motala Sall di wax ne am nañ yéene bu baax ci lu ngeen nekk rek ñu ànd ci yéen ñu ànd kon ñoom ñoo ngi sàkku ngeen ñaanal nu euh, fee ñu nekk di Touba Argentine yàlla suñu borom changé dëkk ba ba ba lan fa sàkku am ñu amee ko kawe suñu jot ndax mboolem réew yi mboolem yéene réew yi yéene yi am. moom la Argentine am waaye dafa fekk ne jafe-jafe yi jamono moo jàpp réew ma te xam nga ci dara da ngay faral di génn muy wàllu xaalis ba maanaam woyef gi woyef maanaam lépp lu ñu yóbbante rek fulul na li ñu yóbbante rek fulul na la ñu yóbbu woon daaw dañu yóbbante woon waaye euh, weccet wi xaalis bi woyef gi woyef waaye nag addiye moom kenn du ko yem xanaa ngeen sàkku lu ñaan rek ci barab bu tedd bi ñu nekk ak liggéey bi nga xam ne yéen moom ngeen di liggéey nekkal ci Serigne Touba te joxoon Serigne Saliou joxoon nañ ndigal ngeen ñaanal nu ñu am ci tawféex ju kawe suñu jot lépp lu ñu fay sàkku rek mu yombru tan daje ceeg nag wax yi xaw a jël la siina daamu fi xidmati wa hablahu maaraamu loolu Serigne Abdou Lahad mooy kàddu yi nga xam ne jëwriñ yóbbante woon nañu ko bin somme bi ngi toll ci fanweeri junni bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di teg loxol nuyoo bi gannaaw bu ko jëlee ci ki fi nekk Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba li mu yéene liggéey Serigne Touba mu jëf ko te ànd ko ak waaye di nuyu ci turu Serigne Afia bu sa imaam ñu jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak mboolem kilifay daayira Muxaddamatul Xidma ak mboolem membre yi ñu teg sunu nuyoo di ko teg sëriñ Dame Cissé mu jotal ñu ko ñi ci jotaay bi yëpp kenn ku nekk tiñ tudd turam léegi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk di la jox sa wàccuwaay waaye di nuyu mbokki Argentine yëpp sëñ Dame nga tegal ñu ci loxol sëñ Mortalla Sall mu jot mboolem ñu nekk Argentine yëpp ci seen taxawaay bu rafet ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi ci at yi yëpp. ci jaayante gi ngeen di jaayante ngir ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma ci liggéey bi ci moo xam koor la moo xam màggal la ngeen di ci am ay taxawaay yu rafet yoo xam ne ñu seq liggéey bi yëpp gis nañ taxawaay yooyu kon ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax day liggéey boo xam ne ñi ko yor ñoom sàmm rek moo leen ci war waaye li am solo mooy borom liggéey bi nga xam ne ku jëf xam ne la nga jëf gis na seen jëf yal na leen fay lu kawe seen jort. ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom dëgëral leen kàttanal leen ba ngeen yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa ngeen man ko yàlla sàmm leen sàmm leen jaboot gi ñoo fa nekk ñëpp yàlla defal leen jàmm ak feex te may ñu xewli yu bare bari te bu ñu xew li tamit yàlla ñu may xol boo xam danañ ko mën a jëmale ci toolu Sëriñ Tuubaa ñu ngi ci sant yàlla bu baax noonu nga ko waxee rek nag ci yëmut ci ndajam daaw mi ñu defoon am na sos na mu jëm ci li jëm ci uh, aña ajjuma yi loolu tamit ñu ngi ciy soññ bokki taalibe yëpp ndax añaa jumaa la lu ñu yëkkati loo xam ne euh, dañ koy yëkkati ngir ñu fiy liggéey ajjuma yàlla dogal ñu ñu war leen a taxaw buñ liggéey ba noppi war fee añee ñenn ñoo ñu leen toggal ba añ loolu nag ñenn ñu ci nekk di ci jaayante ñi ni maa jëy kenn ku nekk jëlub jëlub ajjuma ñu ngi ci am xalaat buñ ci am sax ngir bëgg euh, ci kanam ñu laas laas boo xam doon dañu am junni junni junni junni membre di nuyu bu kenn ku nekk jëlee jëlee benn benn ajjuma loolu lu néew néew ku jël bala ngaa jëlaat dana mën ñaari at ko defee loola kon euh, ci turu sëñ Fallou Diop mi nga xam ne Angleterre mi nga xam moo koy coordonné waaye da ko ubbi rek waaye nag euh, dañ ko ubbil fu am murit wala julit bëgg lu baax mën a nekk ci àdduna yaa ngi ci biir euh, moo taxit suñ daam ngeen yaatal ko ci mbokki taalibe yi ndax liggéey bi liggéey bu rëy la ndax liggéey bu sax moom buñ ko bëggee dañ koy teg ci loxoy mboolam ñu yaatu loo tax na ngeen ci bokk taalibe ku neex boo jokkoo Sëñ Fallou Diop da nga jël bu àjjuma boo ko waxee boo ko joxee dañ la bind àjjuma ja nga jël bu ñëwee buñ ko dugalee ci groupe bi ñëpp dañ xam ne bisu àjjuma tey jii de la yàlla dogal ñee délégué jumaa Sëñ Tuubaa ji ba seenu ñaq-ñaq ñaq ba ba war a noppal ba war a dalloo ngir ngir añ mu leer na tey ji yaa joxe dépense bi ngir ñu añ te loolu lu rëy rëy rëy la te feex la joo xam ne lu nay lu nay lu nay lu nay xaj na ci loolu àdduna xaj na ci loolu àllaaxira xaj na ci fasaale ca maam ya dem xaj nañ ci moo tax am na ñoo xam ne ñuy joxe bay jox waale seen waajur wa jiitu ndax loolu jëf la joo xam ne joxe ñam rek dafa rëy waxuma laa nga joxe jumaay Sëriñ Tuubaa ji waxuma laa ñu xëy euh, fajar bale def lépp ba liggéey bépp noppi ñu dafa taxaw sàpp yi defaraat tapp yi dafa lépp ba noppi di xéwlu mu leer la yow tey ji saw ñaq leen xéwloo loolu tubaab kër jëf ju day rëy la Eh, moo tax nag kenn ku ne war ngaa gën a góorgóorlu fas yéene jël ca jël jël jël ca jël defee dara dara dara dara mën a nekk te du des ci kenn loolu nag kon ku ci kii bu ci jokkee suñu fàllul eh, ngeen jokkale ko moom rek bu ko defee lañ ci war a doxee ak doxinu yëpp ñoom ñu ngi yor dañ leen ci leeral ñu ngi leen di sant di leen gërëm ngeen demee ngeen santal ñu mbokki taalibe yi ci seen taxawaay bu rafet ak jëf ji nga xam ne moom lañ yore di ko daxee kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal yàlla xéwal yu bare bari ci bàkk Seex Xaadim wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh